حبيب الله مفره إدانا يرى فتى مساكن وجورا حبيب الله مفره إدانا يرى فتى مساكن وجورا كساب والم وسين ثم سالم tasa Banjul wa Bambu suma Ñooro wa Njaambur suma Ndargéej suma Waalo tasa ka Jolof wa Afra Fuuta Tooro tasa ka Ndakaaru fi bëhril muhiitu yarraahu fatan unaalika inda Mbooro wa saara ila Konaakiri suma Galwa wa lu Gabon أتوا كمن يسور وسار إلى كناكي سما قلوا وأهل قبن أتوا كمن يتور وأهل كرا مبزا سار وكونغو كسابر وبر أو بهور أتا من بهري ما يمبالي توبا wayaati bilaadu maan ya ataa min bëri maayu mbaali tuuba wayaati bilaadu maan ya dooro abiballahi laysa lahu ka mislun li ahmadu bamba fi asbaati sooro alihir dan min albaaxi dawaaman بجاه المصطفى واتى طهور وصلى الله مع آل وساب عليه كما له من قيور maa yomb yomb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaan ni jaam ñi njiit maa yomba la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaan ni jaam yi njiit laa ngi lambar na yumb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaan ni jaam ñi njiit laa ngi wiir wiir yomb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaan ni gaay waajaa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaali wu ñuy bokkam du seen mappandoo nii leen ko maam yaa ngi ku dem ba daw me dammoo déewoo rafoo tadawoo yow sut nga ñëpp salaan ngeen ron gu mag gaa ngi